abone leen ci chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin te activé cloche de notification bi ngir lu wàccati bees ngir man di ko jot ca tàng-tàng ba audu billahi min alshaytaani arrajim bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi bàyyi xel chaîne youtube bi di yaatal xeltu yin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi balu ñépp xaq di baal ñépp di ñaan yàlla subhaanahu wa taala mu boole ñu baal di am mbégte di fas yéene àndati ak yéen ci seen jotaayu koor seen jotaayu koor tey nag dañoo fas yéene jëmale waxtaan wi ci wàllu naafila ndax ku ne xam na ne naafi la moom lu baax la ci at mi yépp bés yépp ak weer yépp waaye nag day gëna baaxati ci weeru koor moo tax tey nag ñu fa yéene ànd ak yéen ci di jéema indi ay leeral ci baat yi muy baatu naafila ak baatu alqiyaam wala qiyaamul layl ak baatu attaraawiix ak attahajjud ndax moom baat yi benn la wala baat yu wuute la baat yu am ak woro wala différence incha allah dinañ ci jéema leeral suñu kemtulaay kàttan mbokk yi ñu njëkk ci baatu an naafila an naafila suñ koy taarif buñ koy définir dañ naan mooy az ziyaada mooy nga dolli ci dara nga dolli ci dara waaw waaye nag bu dee ci istilaax mooy ibaadaatun zaida ala al faraid waaw bu dee ci istilaax al fiqhi bu nee baatu naafila mooy jaamu yàlla yuy dolleeku ci farata yi maanaam mboolem jaamu yàlla yi nga xam ne ay farata lañ julleeg woor ak nata aj màkka la cay farata bu jàllee loo ca dolliwaat te nekkul farata rekk naafi la lañ koy tudde moo tax naafila sens littéraire bi sens étymologique bi mooy dolliku ak ziyaada waaye nag euh, bu dee ci wàllu fiqh termo bi li muy tekki mooy jaamu yàlla yi nga xam ne ñooy ay farata soo weesoo farata yi loo ca dolliwaat naafila lay doon la buñ ko tuddee bokk na ci asalawaat an nawaafil muy julli naafila yi asalawaat an nawaafil julli naafila yi day dugg ci cadre naafila te mooy julli yi yokk ci farata yi xam nga julli yi juróom lañu suba tisbaar tàkkusaan timis géewe bu ko defee yooyu ay farata lañ waaye yang cey toftalaat te nekkul ay farata yooya naafilay julli lay doon lu mel ne ki boo jàppee ba noppi nga julli ñaari ràkka ñaari ràkk yooyu ngay toftal ci njàpp mi kooku naafila lañ koy tuddee julli gi yor yor naafila la nuyuy jàkka naafila la jullik baawu naan naafila la qiyaamul layl naafila la jullik aajo solaatul xaaja naafila la tabaarakallaahu naafila yi bari na lool naafila nag nekk na loo xam ne yàlla moo ko yoonal yàlla moo ko santaane ci benn xadiis alqudusi boo xam ne yonent bi sallallaahu alayhi wa dana inna allaha qaala man caada lii waliyan faqad aadantuhu bilxarb wa maa taqarraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mimma aftaradtu calayh wa maa yazaalu cabdii yataqarrabu ilaya binnawaafili xatta uxibbah fa idaa axbabtuhu kuntu samcahu alladii yasmacu bih wa basarahu alladii yubsiru bih wa yadahu alladii yabtishu bih wa rijlahu allati yamshi biha wa in saalani la uctiyanna wa la in istacaadani la uciidanna wa ma taraddadtu can shayin ana faacilu taraddudi can nafsi almumini yakrahu almawta wa ana akrahu musaa'atah rawahu albuxaari can abi hurayra yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla subhaanahu wa taala nee na man yàlla day dama fonk samay gaay samay xarit samay wàlliyu ba képp ku noonoo sama gaay képp ku noonoo sama xarit yi sama wàlliyu yi déclaré naa la guerre kon képp ku jël nituk yàlla koo xam ne ci mbaax rek la nekk ci njub rek lay jéem a nekk di jéem a jëfe lu baax di jéem a bàyyi safaan nga di ko noonoo yow day jàppal ne yàlla déclaré na na la guerre te kuy géer ak yàlla nag du am ndam yàlla moom saa yu ne mooy am ndam ki jàmmaarloog yàlla gàcce la yam wala defet yàlla nee na mbooleem li jaam bi di takku di ko jëf ngir di ci dabu sama ngërëm wala di ci dabu lu ma neex dara gënu ci gaaw dara gënu ci efficace def li ma ko farataal kon mboolem lu ñuy jëf di ci wut lu neex yàlla wala ngërëmul yàlla ki koy jëf daal na xam ne li gën a gaaw ci maye ngërëmul yàlla li gën a neex yàlla li ñu gën a mën a daboo bànneexu yàlla mooy defal yàlla li mu farataal ci ñun jullik farata kooruk farata aj màkka azaka defal yàlla li mu farataal daal mooy li ñu gën a mën a dabuwee bànneexam waaye tekkiwul na itam defal yàlla lu baax ci farata yi rekk la yam waaye ginnaaw bu jaam bi góorloo ci farata yi kemtulaay kàttanam mu boole ca itam di góor góorlu ci ay naafila yoo xam ne da koy taxawe ngir jublu ci jege yàlla dana ci dem ci fonk naafila ak taqoog la ba yàlla bëgg ko kon ndekete naafila bu ko nit ki tàmmee farlu ci di ko faral di def mën naa dem a dem ba am mbëggeelu yàlla yàlla ci boppam moo koy bëgg te defe naa dañuy faral di wax ne ne buur bëgg na ma euh, walla nga ne buur bëgg naa buur yomb na waaye ndax buur bëgg na la looloo jafe bëgg buur yomb na waaye buur bëgg la moo jafe naafila yi nag ginnaaw boo fonkee farata yi nga teg ci fonk ay naafila man nga cee dema dem ba yàlla bëgg la te ku yàlla bëgg nag jàppal ne amoo lu ndaw am nga lu rëy rëy ndax day dem ba yàlla mooy dox ci sa lu bari day dem ba sooy dégg yàlla ci nopp yàlla ngay déggee day mel na daal yàlla day taxaw taxawaayu nopp bi ngay déggee taxaw taxawaayu bët yi ngay gise taxaw taxawaayu loxo bi ngay jële ka tege ak di ci nuyoo ka laal looy laal taxaw taxawaayu tànk yi ngay doxe maanaam daal yàlla dalay kàttanal ci say nopp kàttanal la say bët yi ngay gise ak say loxo ak say tànk ak say cër euh, danga dem itam ba jubóog yàlla ba am ijaaba loo ñaanati yàlla yàlla may la ko loolu itam fonk naa fi la dina ko maye loo ragalati itam boo ci musloo ci barke bi yàlla ci kàttanu yàlla ak mbaaxam yàlla musal la ci danga dem a dem ba nga xam ne sax yàlla sopp gi muy sopp sa yu baax yi du sawar nga gaaw fee jógee ba soo demee ba sa àpp mat ba muy yebal malaaka mu war a jël sag ruux nga war a bàyyi koo àdduna war a ba barsàq yàlla day mel ne lu ci hésité waaw day mel ne ku naan malaaka yi diw mee de délai bi mu war a mat na àppam mat na waaye daal moom daa baax lool daa farlu lool ci naafila moom daal xam naa ne dadi rekk la ma waxoon mënuma cee dellu ginnaaw muy li kulli ummatin ajal fa ida jaa ajaluhum fala yastaxiruuna saatan wala yastaqdimuun muy doomu aadama moom su àppam matee faawu day dem rek waaye daal wax dëgg yàlla euh, dem leen ngeen jëlal ma ruux gi waaye daal xam naa ne daal maa ngi ciy hésité lool maa ngi ciy xel ñaar lool loolu itam yàlla di la jël ba noppi di ci xel ñaar mel na daal bu bàyyi woon la fi moo ko gënal loolu fonk naa dina ko may nit ki bu ko defee euh, loolu doy na firnde ci ne naafile yàllaa ko santaane euh, ma ñëw nag ci différence bi am ci yenn ci baat yi muy qiyaamul layl ak taraawiix ak tahajjud ndax naafila moom leer na naafila moom baat la bu yaatoo yaatu muy day dugg ci jaamu yàlla yépp ndax jaamu yàlla goo goo mën a jël rek bu weesoo la cay farata loo ca tegaat te du farata rek naafila lay doon kon julli bu weesoo julli juróom yi euh, loo julliwaat naafila lay doon euh, azaka bu weesoo azaka ji nga xam ne mooy farata jaamu yàlla ci alal bu weesoo azaka jiy farata loo ca tegaat rekk ci ay saraxeeg yooyu ak waq foog yooyu naafila lay doon aj màkk yitam bu weesoo ajug farata gi loo ca tegaat ci wàllu umra kooku naafila lay doon woor itam su weesoo kooru ramadan muy weeru koor gi laneen loo woorati te nekkul fay bor wala nisër ak yooyu naafila naafila lay doon kon naafila daal ndeke yamul ci julli waaye mboolem jaamu yàlla yi bu weesoo la cay farata loo ca toftalaat naafila lay doon mbokk yi defe naa ne loolu mënees na cee doylu ci wàllu naafila ñu ñëw ci qiyaamul layli qiyaamul layli nag euh, bu dee baatu alqiyaamu luxatan mi ngi jóge ci xooma bi nga xam ne bi maanaa waqafa waaw kon qiyaamul layl mi ngi jóge ci xaama bi firi taxaw na alayl layl nag min gurubi shamsi ila tuluucil fajri baat bi ñu sësalee qiyaam gi muy al ndax qiyaamul layl lañu wax baatu al layl mooy waxtu yi doore ci fi jant bi sowe ba fa fajar di xare loolu mooy al muy ak guddi boo defee kon kooku mooy sens étymologique ci qiyaamul layl parce que mu composé la ñaari moo boole la mooy qiyaam ak allayl qiyaam mooy taxaw allayl mooy guddi waa léegi maanaal istilaaxi bi mooy lan mu ne wastilaaxan qiyaamu layl huwa solaatu nafli min baadi solaati isha mais ci al istilaax al bi li muy tekki mooy bu ñu nee qiyaamu layl mooy nit ki julli gee ba noppi toftalaat ci yeneeni julli toftalaat ci yeneeni naafila naafila yi ñuy amal ginnaaw gee mooy qiyaamul layl kon qiyaamu layli ci almaana alsharci umuman mooy nit ki paase li ëpp ci ak guddeem ci jaamu yàlla kon qiyaamul layli ci almaana alsharci umuman muy maanaa bi li muy tekki ci sharia muy sens global bi sens général bi li muy tekki mooy euh, nga paase li ëpp ci guddi gi ci ay jaamu yàlla ci ay jaamu yàlla mën naa nekk ay julli mën naa nekk ay jàng alquran mën naa nekk zikrullah mën naa nekk salaatu ala nabi mooy daal nga takku ci guddi gi li ëpp ci guddi gi nga ci jaamu yàlla waaye am na al maana al xaas muy am na sens spécifique wala sens particulier euh, sens particulier bi mooy ci wàllu julli moo tax mu ne summa stuamila bi itlaaqihi ala solaati bi xusuusiha ginnaaw nag au départ bu ñu masaana wax qiyaamul layli mooy nit ki paase li ëpp ci julli gi ci ay jaamu yàlla dañoo demaat ba gën a tënkaat maanaa qiyaamu layli daal di ciy jublu julli kase kase nga xam ne suñu waxatee qiyaamu layli rek mën naa am jubluwuñ ci jàng alquran ja jubluwuñ ci dikrullah ja jubluwuñ ci salaatu ala nabiya waaye ñu ngi ca jublu rek nit ki takku ci guddi gi di amal ay naafile yu julli bu ko defee wa tusamma al ibaadatu fi layli qiyaama moo tax jaamu yàlla gu ñu amal ci guddi danañ ko tudde qiyaam ndax lan li anna al ibadata tatatallabu al qiyaamu laha li anna al ibadata tatatallabu al qiyaama laha ndax jaamu yàlla gi moo lay exiger nga jóg nga jóg amal ko jaamu yàlla gi nga nar a amal ci guddi gi muy julli geeg jàng alquran jeeg julli euh, zikrullahi jeeg solaatu ala nabi moo la imposer moo la exiger ci nga yeewu arrêté say nelaw waaw ndax yàlla wax na ko ci alquran qumil layla illa qalila waaw ne taxawalal guddi gi di ci naafila di ci jaamu yàlla ba mu des lu tuuti kon bul nelaw lépp kon gisoo qiyaamul layl li tekki kon qiyaamul layl am na maanaa aam am maanaa xaas maanaa aam bi mooy nit ki yeewu ci guddi gi di amal ay jaamu yàlla yoo xam ne du doon julli dong mën naa doon julli mën naa doon jàng alquran mën naa doon dikrullah mën naa doon salaatu ala nabi am na maana alxaas muy sens particulier te mooy nit ki yeewu ci guddi gi di amal naafilay julli naafilay julli euh, mbokk yi ñu ñëw ci baatu at taraawix mbokk yi taraawix buñ koy définir luxatan jamcu la ci tarwiixa tarwiixa nag mooy almarra alwaxida min arraxa arraxa mooy gennug noppalu mooy gennug noppalu bu ko defee lan moo tax nag ñu boole kook solaatu naan solaatu taraawiix mooy julli jullit ñi buñ daan amal julli taraawiix dañuy noppalu ci diggante ràkkaa yi muy dañuy julli ñaari ràkka sëlmal julliwaat yeneen ñaar ràkka sëlmal sëlmal sëlmal yooyu ñuy am ci diggante ñaar ràkka yi day nuroog ak noppalu moo tax ñu daldi koy tudde solaatu taraawiix jullit noppalu yi kon ci loolu buñ ci sukkandikoo dañu mën a wax ne solaatu taraawiix mooy qiyaamul layli waaye fi ramadaan solaatu taraawiix parti la ci qiyaamul layli waaye nag du qiyaamul layli gi ñu def ci jamono yépp waaye mooy qiyaamul layli gu ñu amal ci ramadaan dong ci weeru koor dong kon saa yuñ ne taraawix rek mooy naafilay guddi yu ñu amal ci weeru koor sax na ci sunna ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daana bari lool lu muy taxaw ci ramadaan waaw kon li wér mooy taraawix parti la ci mafhumul aam li qiyaamul layl laa shakka anna solaata taraawix juzun min al mafhumil aam li qiyaamil layl kon solaatu taraawix parti la xaaj la ci qiyaamul layl ndax qiyaamul layl mooy naafilay guddi yi bu dee koor ak budul koor qiyaamul layli mooy jaamu yàllay guddi bu dee julleeg budul julli kon buñ nee taraawix nag kon parti la ci qiyaamul layl parti la ci qiyaamul layl ndax qiyaamul layl mën naa doon julli julli naafile ci guddi bu dee koor ak bu dul koor waaye qiyaamul layli bi nag bu dee koor la muy naafile guddi gi bu dee koor la mën nañ koo tuddee taraawiix wala sulaatu taraawiix loolu itam lu jar a bàyyi xel la bu ko defee kon euh, yuaddu qiyaamal layli aaman li kulli ayaami sana wa salaatu layli tusamma qiyaaman aw aw tahajjuda kon qiyaamul layl mooy naafila yi ñu amal guddi ci mboolem fani at mi ak weeri at mi bu dee koor la ak bu dul koor la waaw bu ko defee kon salaatul layl mën nañ koo tudde qiyaam mën nañ koo tudde tahajjud mën nañ koo tuddee eh, nu mu qiyaam mën nañ koo tuddee tahajjud waaw jële nañ ci ummul muminina saydatuna aisha radiallahu anha mu wax benn xadis bu gudd a gudd xam naa dañ koy tekk ci olof noonu rek mu ne yonent bi sallallahu dafa am benn guddi mu génn ci këram dem ca jàkka ja di fa naafile ji di fa amal lay la waaye mbooloo ma topp ko bari lool bi ñu xëyee ku ne nettali sa moroom ne biig day jàkka ji amoon na solo lool neexoon na lool bu ko defee kuñ ko nettali nga ne waaw lu taxoon mu am solo kala koy nettali ne la yonent bi sallallahu alayhi daa bàyyi woon këram ñëw ci jàkka ji jiite ñu ñu koy nettilante mbooloo mi bari lool ci guddi ñaareel gi guddi ñetteel gi nettali ba gën a yaatu mbooloo ma gën a bëreeti guddi ñeenteel ga itam mbooloo ma jéggi dayo lool sayyidatuna Aïcha nee na yonente bi sallallahu alayhi wa euh, ci guddi ñeenteel gi bi mu leen jiitee naafila ba noppi ba jiite leen julli suba euh, dafa jàkkaarloo mbooloo mi ne amma baadu fa innahu lam yaxfa calaya makaanukum lakinni xashiitu an tufrada calaykum fa tacjizuu canha mu ne yéen mbooloo mi toppoon sama ginnaaw di ànd ak man sama naafila xam naa seen tolluwaay ci bëgg yàlla ci ragal yàlla ak bëgg lu baax ak bëgg jaamu yàlla waaye na ngeen yëg ne tey laay mujj a génn jóge sama kër di ñëw ci jàkka ji di leen jiite naafila gii ndax gis naa ni mbooloo mi bëree su dakkul rekk mën naa dem ba yàlla farataal naafila gi te su boobaa du ngeen ko man ndax ginnaaw julli juróom yi rekk lañ mënta matal rawatina nag julli naafila yi bu ci bu ko boole woon ci farata yi mbokk yi kon leeral naa taraawiix kon taraawiix parti la ci qiyaamul layl waaye nag moom koor rekk lay doon kon bu ñu nee solaatu taraawiix mooy naafale yi ñu amal koor ma ñëw ci at tahajjud at tahajjud sens étymologique bi almaana lugawi yi mu ngi jóge ci tahajjada tahajjada mën naa tekki naama mën naa tekki sahira xam naa dafa bokk ci addaad yi waaw kon wahuma kalimataani mutadaadataani waaw kon tahajjud mën naa tekki naama ak sahira te naama ak sahira nag kalimataani mutadaaddataani la ñaari contraire lañu waaw am na baat yoo xam ne mën nañoo firi sens bii firi sens contraire ba kon ci loolu euh, solaatu tahajjud ci istilaax ci istilaax mooy nga julli jullik coobarewu wala jullik naafila ci guddi waaye nag day fekk mu doon julli goo xam ne nelaw da koy jiitu dangay nelaw yeewu soog koy amal kon solaatu tahajjud guddi dong dong dong lañ ko mën a amale kon buñ nee almutahajjidu huwa man yaquumu laylan min nawmihi sol yusalli tatawwaan kon ki nga xam ne mutahajjid la mooy kii tëddoon nelaw ab ab diir ci guddi gi nelaw tuuti ci guddi gi yeewuwaat di julli julli la moom la yàlla jublu ci wa min al-layli fa tahajjat bihi naafilatan lak kon lii rek mooy maanaam salaatu tahajjud naafila guddi la waaye rek li ko wuutaleeg yeneen naafila yi mooy day doon la goo xam ne dangay nelaw ba ci digg bi nga yeewu jàpp ba sell wala noo mën a selle ca la sa ceel laaj nga soog a amal naafi la googu kon mbokk yi dundal guddi euh, ci weeru koor lu am am solo la naafilu lu am solo la ndax euh, jële nañ ci aïcha radiallahu anha mu ne kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ida daxala al ashru axya al layla wa ayqada ahlahu wa jadda wa shadda al mizar rawahu al buxaari wa muslim Aïcha radiallahu anha nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu dem ba fukki fan yi mujj ci weeru koor ñëw danaan dundal guddi ci jaamu yàlla waaye njabootam di leen jaamuloo yàlla waaye itam sori ay soxnaam kon mbokk yi dafa mel ne baat yooyu daal lii lañ ci doon leeral muy diggante naafila naafila ak qiyaam ak taraawiix ak tahajjud naafila jaamu yàlla yépp a mën a am naafila jaamu yàlla gum mën a doon bu weesoo la cay farata rek loo ca tegaat naafila la mën naa doon ci julli mën naa doon ci woor mën naa doon ci azaka mën naa doon ci aj màkka waaye bu ñu nee xiyaam nag mooy nit ki di amal jaamu yàlla ci guddi mën naa doon julli mën naa doon jàng alquran mën naa doon eh, tudd yàlla mën naa doon ci julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa waaye mën naa doon itam ay julli ay rakka loolu mooy qiyaamul layli taraawiix nag mooy qiyaamul layli naafilay guddi yi ñuy amal ci weeru koor jut nag mooy naafila goo xam ne nit ki da koy amal ci guddi ginnaaw ba mu nelawee ba yeewu mbokk yi dañu taxawandi fii di leen ñaax ngeen abonné wu ci chaîne YouTube bii di yaatal xeltuyin di bàyyi xel waxtaan yi di commenter ak di aimer ndax fi la njëriñ yee gën yaatoo jaa ngeen jëf wa